yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Thiatou ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bës touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala Paypal da ngay def 3W point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga dal di topp nag tegtal yi ñu lay wan. am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defee saa su ne ñu ngi woon ci Pikine dégg nga ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Ama Baldé li ñu wax ci blessure Modou bi waa kër Modou Lo nag tey ñoom lañu ñu seet si ñoom it ñu wax blessure bi nanu lañ ko gisee blessure bi am na bi mu amee ñoom supporters yi doon waaj ànd ak Modou Lo bëri ji ak Ama Baldé ban yéeg-yéeg lañ ci am gars yi ñu ngi toog ci koñ bi mais ñii ngi toog ci jotaay bi di waxtaan ñii ngi mer Adama dañuy dem ci gars yi ñu nuyu leen bëggee parce que kee moom sànq ba léegi mu ngi wuyu téléphone be mu ngi rek mu ngi aalu rek salaamaaleykum. sama ji siyaar naa la de. yaa ngi si jaww maa ngi si jaww maa ngi kese. Diaz. waaw Diaz kese. Diaz point. Diaz point <laughs> waaw. Diaz boobu ku ko tudd loo sant. Diaz. Diaz sant Diaz. waaw. <laughs> maa lay bëggee Diaz sëñ bi noo def. sant jàmbaar. maa yaa ngi man Birame Mbuub. Birame Mbuub. Birame Mbuub. Mhm. jaal Mbuub jaal Thiam. Ah, noonu la fa demee nag. jaal ma ca xayra jaal ma ca neex maa waaw ah, laataar ak maajoor. Eh. waaw noonu la fa moom waaw yow loolu biri la fa naan. maa lay sant rek. maa yaa ngeen waaw bu baax bu baax a baax. Moussa. Moussa nan. Baaji Baaji. Baaji. waaw. Baaji mbokki fan. Casamance. fan ci Casamance. Bignona. Bignona. mbokki Balla Gaye dégg wala la dëgër. non mbokku Modou Lo baa ji bokk Modou Lo. Modou Lo 100 pour cent kay. amul sa intermédiaire moom keese bu bàyyi lamb ma ma ma bàyyi lamb bu nee ci lamb ma nee ci lamb. moom rek laay xaar lamb dootuma ko sax seetaan tere bu bàyyee. bu bàyyee télé sax du ma seetaan lamb lamb laay ñaan sax ñu supprimer ko bu bàyyee. <laughs> maa ngi lay bëggee fa. ñu si àll tawfeex kay. maa yaa ngi am bu baax a baax. ci jaan fay. ci jaan waaw. ci jaan dama laa xàmmee de kan gay tëggal. man. Ah. si mbëri. kan ngay tëggal ci mbëri. Modou ak kan. waaw ak mbëru parcelles yi fi ñoom dafa am mbër. bari yàlla ni yëngal. waaw waaw ñu si bari nag wax dëgg fa neex yàlla bu ñu amee combat. Hmm. ñun tëkkat yi fii dañuy booloo dem jàpp si affaire yi waaw. dooleel affaire bi dooleel mais ñun moom bu ñu xamee si làmb Modou Lo moo tax. Hmm. waaw. ban tëgg ngeen mujjee tëggal Modou. mbay si mbay. mbay si mbay la wax. nan mbay si mbay. ne leen mbay si mbay kid kid taalibe Cheikh baa ngeen nii mbay si mbay Musa Yaasin rakit kid kid tabrab rakit kid tabrat tapa cakit tabax rakit tabrat kid kid cakit mais kid kid cakit boobu la ñëpp doon xaar la treize ñu ne Modou daa blessé waa Ama Baldé yëpp nee nañ gaañuwut prétexte la rek bu muy def ndax parewut ci combat bi loolu loo ci wax ndax Modou loo parewul si làmb ci parewul moo tax diggante moo Ama Baldé moo tax mu ne a ah, Modou loo de wax dëgg fa neex yàlla ba muy bëree mbapat sax daa pare maasama ko mu duggee si arène bi Modou Lo loo ko mën a waxal yàq làmb wala saboté làmb wala def loo xam ne tey jii amateur yi duñ ko bëgg Modou Lo musu ko def blessé nag si làmb nañ ko fekk. fi neen koy fekk fi neen koy bàyyi nax yàlla mooy dogal comprendre nga mais Modou Lo wax dëgg fa neex yàlla lépp lu ko war si làmb ji def na ko ñun commencé woon nañ répétition léegi laa doon déggante ak Moussa amul. amul sens. vocal yaa ngi nii monsieur Yacine Mbaye. ah, ah voilà ñun commencé woon nañ pour def répétition yi pour waajal le treize. wax dëgg fa neex yàlla mais nag jàmm pexem yàlla ak dogalam. Hmm. nii la mënoon demee ñun gëm nañ suñu mbër. barki Seydina Mohamed bu ko nit ñi bàyyi woon sax mën na bu blessure am bi ñëw bëreeg Ama Baldé. mais waa Ama yi nee nañ Modou blessé wul. bi yàgg na ko dal na ko avant signature contrat bi. Hmm. te teewul da koo làq ñëw ba ci làmb Modou warul daw yoole booy démb mer nañ. <laughs> waaw mais man man ba ma xëyee wax dëgg fa na yàlla ba ma yeewoo depuis sànq ba ma duggee YouTube waa kii laa xool waa Ama na nan doon réagir comprendre nga maa ngi gis nag ñuy wax c'est très normal ndax tamit yaakaaroon na ne combat bi day am comprendre nga. kon nag bu ñu demee ba heure bi mu des dix neuf jours blessé bi mënoon na juge si Ama Balde lamb la. mu bi na jóge si amaabale Balde ndax ñun ay jaam nan rek dañuy sabablu ñun ay doomi Ama Balde sunu nawle la. Modou Lo sunu la. Pikine am nañ fa ay xarit teg kat sabar am nañ fa ay am di jàmm Pekaay Mbaye sunu wala sunu lépp la ñoo bokk seen kii yow mais tey jii nii maanaam rafet na tey jii nii bu Modou loo blessé waa Pikine ah wax dëgg fa neex yàlla wax ju ñaaw waru fa jugee man si li foog man. ndax dégg da nga wax ju ñaaw non wax ju ñaaw la. man seetaan naa ko wax dëgg fa neex yàlla laa sama jabar du ma bàyyi ma fen mi may seetaan ba ma yeewoo ba léegi maa ngi seetaan interview mais da nga da nga siy dégg ay ay commentaires yoo xam ne maanaam tey jii nii Modou Lo blessure mënoon na jóge si Ama Baldé ndax làmb la ba ñuy bëreeg Eumeu Sène ba ne ginnaaw suba la làmb ji la Eumeu Sène gaañu te booba boobu daf ñoo metti woon mais après dañuy xam ni kii maanaam lamb ji warul loon am comprendre nga après bëri nañ ko si jàmm ak salaam Modou Lo daan ko. yaa ngi dégg. Hmm. waaw noonu la demee daal. jaajëfal bu baax bro. nga loo wax ci blessure Modou Lo. non dafa blessé gravement nag. dafa blessé parce que gis nga. grand coow moo bari rek ñi naan. Modou Lo dafa daw lamb gi Modou Lo nii nii ñoom ñoo la gën a xam kii Modou Lo. Hmm. wét gore wétali gore ñoom ñoo la gën a xam ne booy bi gaay na la booy bi dug centaine de fois bële na ko ak blessure bu demee ba. ba ba ne dafa blessé mënatul bëre rek jàppal ni dafa blessé tax Modou Lo newatul bu muy bëreek ay blessure ak jamono yu bokkul ah léegi responsable la te ñun parce que nous sommes conscients de ñun nous ñun du ñu topp topp ñu ñoom seen wax nañ wax quoi ñun xam nga ñun parcelle grand ñun fii du banlieue banlieue la ñun lamb gi bu ñëwee ci lañ dañuy nekk ci lamb gi lamb gi bu paasee rek. ay soutien banlieue la nga ni la bokkul ak fii bokkul ak kenn du leen tekkal ci niveau de ci esprit ci lépp sax jikko yi sax bokkuñu. ñun gis nga lamb gi bu ñëwee rek ci la ñuy nekk ci lamb bu desee ay deux jours trois jours duñ ko waajal ay un mois deux mois quatre mois déedéet bu ñu nee desee trois jours la ñuy bàyyi suñu jot waajal ko ndax suñu rakk la dañ koy jàppale. mais lu ko weesu dañuy liggéey xam na ñun chaque jour dañuy xëy di joxe dépense tal nañu leneen. mais waa liggéey supporter Ama Baldé mais niveau yi bokkul grand niveau yi ci communication sax niveau yi bokkul. nee nañ Modou blessure bi yàgg na ci moom da ko doon nëb daa dem ba mujj gi xam ne bu ñëwee Baldé Baldé bi da koy daan moo tax. voilà loolu moo neex nag blessure bi yàgg na léegi nag dem na ba yaakaaroon ni mun na bëreek moom mënatul bëre ak moom parce que Bakken moo gën lamb gii nii. mais ñoom ñoo la gën a xam ne Modou góor la eh, yow man Ama man bu ma dëggalee bopp du ma daan mii daan Modou. yow mi waaw ah, yow Ama day dara. barki Cheikhul Khadim Modou lu dul lekk du ko ko def mu Ama moo la gën a xam kii Modou. wiiri wiiri bi nii fugg yaa ko topp may ko fit fit bu muy indi bu ko fugg yi topp ak ak fit bu muy duggee ci biir lamb gi moo Modou Lo ci enceinte bokkul. Ama damay ragal sa Modou dàqee ko ci kaw tribune bi dóor ko ba dàqee ko ci kaw tribune bi ci actuellement ni est que combat bi kon dina dina mën a amati ah, parce que waa Ama yi nee nañ Modou li mu bëgg mooy delloo avance bi ñoom dañ koy dimbali mu gaaw delloo ko parce que bëggatul bëri. saa yi boo bëggee dégg-dégg rek waa Pikine stade bi ñoom si ñoom la féetee waaye yàq nañ ko te lamb gi ñëwagul ñun moom duñ ñu sonal parce que lu ñu indi ñu indi lu ko raw mais yàq nañu stade bi xam nga lu tax. Hmm. ñoom stade bi la ñu war a toj ak ay marto ndax seen mbër keroog boobu dañ koy toroxal. ama xam na nu muy demee grand barki Cheikhul Khadim Modou bu décidé te caaxanu dàqee ko ba seen biir kër coow li moo fi ne rek ah maag Modou saay du lamb waay gars yi du lamb roy du ñu rog piir grand yi ñëpp xam nañ ni Modou la Sénégal ñëpp nangu nañ loolu waaw wadal naa ko san ziar naa la. doo waaw blessure bi ni ñu ko ñëpp di dundee noonu lañ koy dundee rek. tey jii nii ku nekk bëggoon nga le treize. Modou ak Ama jàkkaarloo. jëflante Modou du ma ko daan ko barki Serigne Bamba mais nag suñu borom ak ndogalam te ñun tamit ay jullit lañ bu ñu borom dogalee rek Modou dafa war a belees si lamb ji lamb ji lañ koy reporté noonu lay demee rek nit mënu si dara. ma Modou dafa daw quoi waa Ama ne dafa daw. waaye gaan bu ma bu ma merloo waaye nga naan Modou dafa daw gaan yow xool nga Modou xam nga Modou yow. booy nee nañ trois def na ñaari face to face ñaari yëpp daa daw ñëwul dem ba combat bi ñëw Modou ñëw. waa léegi grand wax la benn affaire am na benn image yoo xam ne ñëpp ko gisandoo. xëy na am nañ face to face mu am problème ñu amaat face to face ñu gis Modou Lo nii près du près si mais du jël ay oto boo xam ne ay 40 millions la jar benn jour boo xam ne bëriwul deful dara ñu koy yàqal alalam. un milliardaire kon lui. te moo tam responsable roi des arènes lañ téye. milliardaire la gannaaw ma xam lu ma bëgg. ñu xam ne la lii làmb la ko waa gis a Ama Baldé ak Modou Lo ñoo bokk nday ak baay. il faut ñu xam loolu ko waa Modou bu mu blessé waa Pikine di génn di yàq der bu ñu yàqee der deru Sénégalais la ñu yàq. te Modou Modou non Modou irresponsable ñu noonu ñun barki Serigne Touba Mbacke médias yi xam nañu bu baax boo duggee di nga gis Modou yabeewuñu yabeewuñu noonu. billaay wallaay di la di ñaanal Ama jàmm di ko ñaanal Modou Lo tamit mais bu nekkee ndam rek barki Serigne Bamba benn la te Modou ko moom. billaay xoolal gannaaw li ma wax la leen saako ceeb buñ ko tegoon nii barki Serigne Touba pepp benn pepp Ama du ko lekk. benn pepp. billaah ñu bëre saako ba mu jeex benn pepp Ama du ko lekk. la xale la. pot bi. gaan pot bi xam fa lañ koy yóbbu. dara néegu yaa ngóone. fa lay deewee. pot bi fa lay deewee. jaajëf. lan ngay dawalee bi jugal génne ko mbëri day daw moto aw ci casque génneel. génne casque boo joxe boo génne casque ma jox la dix mille. entraînement entraînement la jugee entraînement la jugee quoi. mais booy dawal sol casque mais diggante bi sorantewul quoi. moo tax yaa ma gën a xam. foo jugee. entraînement. entraînement fan. dunya. yaa kan a àndoon. mag fee topp ak Maodo Kane ak gars yi rek gars yi gis nañ si écrit bi. waaw. blessure ah, ni ma gisee comme ni rek ndogal yàlla la ndogal yàlla suñu borom kenn mënu ci dara waaw. gars yi ne Modou daa daw booy bi. loolu moom wax bu yàqu la rek Modou daa daw koy wax bu yàqu Modou moom dalee tàkk ngeen ba léegi lii mi ngi koy soog a def. ndoxul yàlla kenn mënu si dara ñooñu ci wax noonu xam nañu Modou moo leen gën a bëgg bëre combat bi fuuf barki alxuraanu karim billahi wallahi xam naa ne instant bii nii moom fi mu toog am na lu ko métti trop man loolu lu ma leer la ba mu dalee tàkk ngeen ba léegi Modou man xam naa combat am yoo xamante ni da koo bële ak blessure billahi wallahi am na combat yoo xam ne man xam naa ne da koo bële blessure day dem ba stade lu muy def day gagné te day bëre dëggal boppam yàlla suñu borom suñu borom defal ko ndam ñu ñibbisi combat yi du benn du ñaar kon bii nii nekk na blessure boo xamante ni xam nga métti na métti na métti boo xamante ni mënu ko bëriwaat rek moo mu déclaré ko. nee nañ waa Pikine nee nañ ku ñëwul signature ñaari signature contrat ñëwul. làmb ja jot mu ne daa blessé ñoom bettu leen woon mais nee na ñoom bëggatuñoo bëree sax Modou ndax Modou ñemewu leen te bëre da ngay bëree ku la ñeme waaw waa Pikine moom nañuy wax rek mais mbër mi si du wax waa Pikine bu ñuy wax loolu wax bu yàqu la soo ba léegi net bi ñuy wax mu damaa yaakaar anu ñoo seen xel wala anu ñoo seen xalaat quoi parce que yow ku blessé nga war a ko ñaanal ah saa maa ngi dégg ci TikTok bi booy woon noonu bëgguma ko sax may bës aw ama xaw ma naan ay Lo lii Modou Lo laa moom mu ngi mel ni kenn xam lu muy nduróo kanam yëpp nekk ay cicatrices kenn mu taxaw ci ah war a dem raxas ci ndab wala mu dem wuti jëkkër mu taxaw ci télé bi di wax nekk su dul noonu waa Pikine nañu ànd ak seen xel te xam kii blessure la blessure na dal ku ne blessure dal ni ki ñu fees seen bundu mel ne dañoo am ndam ñaari yooyu ñuy wax mais mbër waga yooyu di sànni ay mu ñibbisi mais kay ku daa toog këram wala mu nekk këram ne ñëw ma signature ñu mën a wax mais ba waaye àgg du commencé sànni ay xeer Mozo dafa dëggal boom ne day dem mais ñoo na ko bul dem mais kook dawul signature loolu ñuy wax mbër mi si boom du ko avancé boom du ko wax. mais nañu bàyyi li ñuy def nii ñu jéem a ànd ak seen xel ànd ak seen xalaat nit ku blessé ñuy taxaw bu ñu ko mbër mi fees fa dellu ku ne ibbi sa gémmiñ di wax loolu rafetlu wu ma ko. waaw man damay jékki-jékki sax man ñi est-ce que ñooy ànd ak seen conscience tranquille quoi ah man loolu waaye. ayca ayca ñu dem dina amul casque nag amul casque. Ah. Euh, coach coach. waaw naka lay jëli jeex naa la baax a baax. maa ngi am jàmm baax a baax. waaw dëkk bi ngi neex. ngi fi gaay yi ngi fi baax a baax a baax. waaw waaw ñoo ñoo ngi ñëw ñoo ngi tëgg naa mas waaw. waaw ñoo ngi ñëw baax a baax. waaw ñoo ngi leen di gérer naas noo ko gisee ak no bi nga ko déggee lan nga jàpp ni moo waral moo waral moo waral blessure. moo waral blessure waaw bu nekkee da nga koy teg si cadre sport ak cadre professionnel. da ngay xam ne loolu mënut a ñàkk ndax moo ni mu dalee Modou Lo moo na ko dalee Ama waaw loolu moom damay xam ne mooy lu wax de sport parce que li ñu naan accident de travail. waaw lépp looy liggéey si sa liggéey da lay dal. waaw léegi nag moom da nga koy a jàpp affaire de professionnel xam ne lii accident de la. parce que Modou Lo boo xoolee yaakaar naa lii moo koy doog a si ci pratique am. am combat ñu ne Modou Lo blessé na mënul bëre. loolu moom yaakaar naa bu doon si joobaram kase kase xam naa te moom xam naa xam day jéem wax naan day bëre. mais lamb la boo gaañoo da parce que tey ñi nekk ci ginnaaw dañoo bëri doo gaañoo comme comme bëgg dem maa ngi dégg benn combat guy gi naan dafa blessé dafa lii non lamb tollu foofu fi mu toll mooy boo blessé dama faj bu wér xam nga boo ñëwee nga nekkaas mais li may ñaan rek mooy dina métti nag dina métti ci côté Ama dina métti ci côté ñëpp parce que dafa métti préparation combat dafa métti mais nag dañ koy teg ci cadre professionnel rek xam ni dafa blessé mu dem faju ba wér bu ñëwaatee nekkaas ci ay activité am waaw ah. mais ñuy wax ni Modou Lo dafa ragal Ama Balde ba tax muy muy muy jiñ ay blessure signature contrat yi ñëwul Euh, nangul bëre bi ñoom sax bëggatuñoo bëre ak moom loolu la ñuy wax. waaw mais loolu ñu ko waxal mooy ñi xamul Modou Lo Modou ñu mu bëre ñoo dayo ñoo ko ñoo gën moom moo ko bëre te mosu leen ragal bu demee ba ragal amaat nag kon moom war na mën teg ngemmam loolu moom loolu moom wax bu kii la sax wax bu neex wax bu naq dee dégg la parce que wax moom day neex a dégg Modou Lo bu demee ba ragal amaat sur tous les moom dafa war a bàyyi lamb man loolu mën moo ko gëm parce que si ñu koy si ñu moo ko bëre ama ah, tamit macha allah bëgg na ay bis yu mag mais Modou Lo moo ko ëppale ko yëpp Modou kon bu demee ne ba ñooñu ñëpp mu rëcc leen ñëw dajeeg ama di am leen lu mu sooxaale non moom man pour man. combat bi koy bëree wala dañ koy mujjee bàyyi. non xam naa ne dina ko bëree mais nekkul léegi. Ah. waaw naa ne moom nañ ko non non non non la vie. ci at bi non duñ ko bëri ci ah, ne na waaj dafa wér na dafa wér parce que am lamb ji la mooy problème bi lamb ji hmm. waaw man li ma lay wax mooy lamb ji Modou lamb bu mës a bëre bii mooy bii mooy lambam parce que bii lu yàgg la bii tey église la woon lamb ji tey église mën a taxawee woon. waaw lamb parcelle lamb revanche la man revanche laa ko jàppee. kon combat bëgg nañ ko. non mais ñoom mën nañ tey nelaw. Pikine ma yaakaar ñoo ko gën a bëgg. wallaay waajib non ñoom ñoo ñoo gën bëgg ci wax mais ci jëf ak sérénité. ak kër combat. non parcelle ñoo gën soxla. jaajëf coach ndax kontaan naa jëlee kontaan naa jëlee waaw ah, delloo ziar gars yi sant yàlla bu baax. la fekk nga toog de relax. waaw waaw toog maa ngi dalu gars yi toog relax yéen. Ah? waaw kon tey suba si dawoon naa tàng yaram bi yooyu aju ngoon maa bi noonu demoon fenn moom. Bible 2. Bible Bible numéro 2 waaw. ñaari combat nga def arène. waaw ah, sama combat nag tax quoi bari noonu nag. trois combats laa defagum. waaw trois combats benn défaite deux victoires deux victoires eh, Boy Baol Boy Baol booy Ada kaay bul daw. non aada bul daw bul daw. ah waaw moom daal dafa ko bilaay si combat bu baax laa jógee. mais doomu si balle bi baa ko balle. moom laa dóor mu daanu. dóor mu daanu waaw dóor mu daanu laa laa fu laa ci laa jógee ba léegi maa ngi toog di xaaraan nag trois ans maa ngi toog gars yi. est-ce que du dóor mu daanu moo tax gars yi di la daw. non mais gars yi ñu xool fu nooy rek gars yi bàyyi loolu noonu yow war a jël ñëw gaay ñëw bëre gaay mais xool fu nooy moom yooyu moom taxul taxul ñu naan làmb gaay la. actuellement ci ban catégorie nga bokk ñan ñooy say adversaire ci làmb. waa xam nga instant yi nag mënoo nekk di taamu si ay mbër parce que mbër yi koo cité rek nañu naan kii na ko préparé pare te loolu moom man man bokk samay bagage man daal ku ñëw baax na man ay nekk fii taamu ay kii war a bëre wala kii laa war a moom man yooyu sama affaire moom. ku ñëw baax na. Modou Lo dafa waroon bëre ak Ama Baldé le treize bi ñu jékki-jékki dégg ne Modou dafa am blessure blessure bi bi nga koy yëgee en tant que athlète ak combat boo xamante ne combat royal la ba yëg-yëg nga ci am. waaw combat bi moom ni la woon demee rek parce que Modou dafa dafa dafa dafa dafa blessé te mi blessé pare la gars yi ñu naan fii la blessé yóbbaale mais pare la si entraînement entraînement. mais nu mu demee la noonu la noonu moo demee rek mais gars yi ngay préparé waat rek. waaw dañ koy préparé wàll ñu ñëwaat rek incha allah. di ngeen bëri combat a. gars yi ne Modou sawarul ci Ama. non waxin la rek waxin la rek. loolu waxin la rek gars yi ñooy wax noonu rek di di neexal noonu rek mais. gars yi ne Ama yéebee koy déranger. non waxin la rek gars yi ñooy wax noonu rek ah ne moom tegul fenn mais Modou bu jàppee Ama nga xam lépp dëgg la. jaajëf Baye Paul de ay ca jéggil Adama. Adama Kaay. Adama Boy Baol Adama Boy Baol sama de maa ngi leen Adama Boy Baol foo jógee man gars sama téléphone moom problème moom laa doon defaree nii. maa baax na. <laughs> waaw instant yii naa <laughs> yees a wàcc. est-ce que bi doful. loolu laa foog daa mel ni si yoon la nekk. téléphone bi waroo ko dépassé yow fi mu toll non man kay gars yi gars yi ñu war a de. dama war a am combat nag bàyyi jëli. dama war a de. Ah, ñu a jox ci combat yi mu bëre. ñan ngay bëre. ñun laay bëre samay morom yi fi nekk. morom ngi am combat di bëre. mais samay morom dimanche bii di bu neex a damaa jàpp ne samay morom kon ñemewuñ ma. billaay wallaahi wa tallaahi. waaw Fallou Ndiaye déggat nañ dinaa waxoon na ma jox Mbaye Gueye junior bi daan jegaan su bëggee comme que man samay morom nangu ñoo bëri ak man. wala mu jox ma Youssou Ndour bu wala mu jox ma Boy Niang ñi fi nit ñi bàyyi laa bëgg a bëri comme que samay morom man. ah dafa xam nga Youssou Ndour xam Mbaye Gueye xam Boy <laughs> booy fi nga laal fenn looyul fenn fenn looyul. jaaxaluñ ma. lamb ji ma pare deux mois rek entraîné ko normal dox samay course normal ñooñu yéemuñu ma sax barki yàlla. waaw waaw yéemuñu ma. instant yii foo nekk nii. maa ngi inte yaa ngi fekk dix nii ma taxaw nii. koñu mbër mi <laughs> bi lañ tase. non koñu mbër mi mbër mi dégg naa dafa blessé. le treize da woon bëre ak Ama Balde booy Ama yi nee nañ moo koy déranger moo tax mu daw signature contrat ñaari yoon lamb ji jot le a mu ne du bëre. waaw mais gars yi moom loolu rek la ñu wax mais dañuy jàpp ne tey Ama la pour man Modou Lo musul yàq lamb su li a tamit dañ ko koy nangul ndaxte nit bu dul gaañu rek amul. xam nga métti na nag waa Ama ñoo yay wax lu nekk parce que lii dafa métti waaj lamb bañ naan yegg nga war a préparer waat ak làmb ji nu muy yàggee xam nga moo tax seen xol a rek ñuy wax meer dara du ama yeebi du moodu du en tout cas daal Sénégal mi ngi doon làmb ju neex. billahi wallahi làmb joo xamante benn saison saison yi jàll yëpp làmb bi moo tax mais amaana nag ni la yàlla dogale tey làmb ji moo am sax ay bakkan dem ci wala ay leneen ak leneen tey bu làmb ji bu leen ko sant yàlla quoi man loolu laa gis. gëm ni combat bi dina am. non man gëm naa dina Moussa parce que ñun ñaar ñëpp lekk nañ avance. ah non man année bi yaakaaruma ko parce que ki ne damaa feebar. te kenn xamul kañ lay wér ak kañ laa wér naa. kenn mënu koo garanté quoi. xanaa dañuy toog xool lu mu bu dee ren ñu ne ren bu dee déwén ñu ne déwén mais lu ci mën a am daal ñu ngi koy ñaanal yàlla mu wér ba bëre combat bi xam ne amateur yi ñu ngi xaar combat bi te xam nga ñoo xaar combat bi quoi billahi wallahi combat bi ñoom ñaar ñu ko war a bëre sax xamuñu ko ni mu toll pour man mm. parce que saa yu yàqoo ñëpp dañ lu leen metti comprendre nga mais ñu ngi ñaan yàlla na mu wër ak jàmm ba bëre combat bi ci jàmm am si ndam ci jàmm. jaajëf voilà jaajëf Baye Jëli. maa lay bégee sax. waaw fi la waree Baye Jëli. naka mu yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax Baye Jëli. dëkk bi waaw. waaw dëkk Baye lii kërën kër. mbër mu ngi fi. mu ngi si jàmm mu ngi si jàmm. blessure nan nga ko ak nan goko ko waaw blessure Modou moom comme ni ko ñëpp yëgee laa ko yëgee. waaw noonu laa ko yëgee quoi comme ñëpp ñi ko yëgee ñi ko ñëpp yëgee laa ko mais xam nañ ne moom du coobareem comme ni yeneen gars yi foog quoi ndax muuru boo xoolee booba léegi depuis Covid bi yëpp ga ñi am combat parcelle yëpp ànd naag ñoom entrainement et tout waaw boo xoolee li tax mu dagg billet dem entraîné ñi nekkul ay caaxaan moo tax quoi. booy nee nañ dafa daw dafa ragal Ama Baldé moo tax mu collé motif boppam ne dafa blessé te blessé wut loolu lan nga ci wax. non Modou moom ko xam-xam ne athlète la te tamit du nit ku am caaxaan du nit ku am caaxaan athlète la te tamit boo boo xoolee kon bu dee daw làmb ji yàgg naa am ñuy dawan ah. waaw parce que nekkul Modou Lo moo fi njëkk a blessé moom Eumeu Sène mi jëlee si moom roi bi jàpp nañ fi date mu blessé te déggoo benn waa parcelle wax dama bëgg nag waa Pikine xam nga ñu am conscient xam nga nekk nit ku waa parce que nit yàlla li muy dogal du nit moom du affaire nit. yaa ngi dégg hmm. nit bu blessé yow tey sa métier mën nga mën ngay dem defi ji benn benn émission. Hmm. ndogal dalla si yoon bi. waaw ñu xam ne lii sport la rek bu tàqalewul warul boole. te Modou amul dara loo xamante ne nii da koy ragal si am si si Ama dina bëre ak dinañ bëre parce que. dinañ bëre. bu ko yàlla dogalee dinañ. est-ce dina ci bëre. bu bëri bu wéree tey man leer na ma ne dina bëre. parce que ñun ñoo dëkk si koñ bi xam nañ ko bu baax depuis temps booy ñun ñoo nekk man dama doon xale si koñ bi màgg mu doon sama grand ma xam ko bu baax te musuma ko xam si caaxaan depuis temps ba pat ba léegi nekkul tey laa ko xam moom bu wéree suba day bëree amul lenn lu muy tiit si ama leer na ñëpp xale yu ndaw yi sax leer na leen bu dee bëree beeg dóor beeg fit beeg yëpp Modou moo ko ëppale làmb nag moo leen boole mu doon làmb jànq ku nekk war na mën a daan sa morom mais Modou moom ah qualité yi ñuy wax si mbër yëpp mu ngi si moom te amul benn qualité bu mu ëppalee wula Ama Baldé. maa lay jaajëfal waaw fii la waree jaajëf jaajëf Baye Jili yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war dox ci diggante Ada Fass Jokkel bu Ndiago Bou Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret diga jot benn SMS bu la yónnee sa code code ma lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala Paypal da ngay def 3w point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan